kan ak kan ak kan Macky mhm. loolu mun la ko wax ne waroo koo gëm mhm. xam lu tax waroo koo gëm xam lu tax mhm. waa léegi Aziz Ndiaye ak Dora lan lañ ban rapport la ñu am ci mbirum affaire de terrain bañ tudd ko ca fan la am nga kon Aziz Ndiaye at Dora at Iliman Lam at Walet nangam ak nangam que dañoo xam ne ñooñu jamono ji suñu boroom ñoom la teg loxo fii ci réew mi ñiy wax loolu di journaliste yi wax loolu ak influenceurs yi wax loolu na seen ndey fexee jur doom ñu mel ne Aziz Ndiaye na seen ndey fexee jur doom ñu mel ne Iliman Lam na seen ndey doom ñu mel ne Waale na seen ndey fexee jur doom ñu mel ne doo Gueye est-ce que comprendre baax na dama ni les petites journalistes là yi wax loolu daan ay Aziz Ndiaye at ay Iliman Lam sunu xaalisat sunu nangamat na seen ndey yi fexee jur ñu mel ne ñooñu. at Waly Seck kat yooyu na seen ndey yi fexee jur ñu mel ne ñooñu bu seen ndey yi ñàkkee jom nag ba juruñu ñu mel na ñooñu ay fen ko dong la ñu mën a doon toog ci plateau yi di duula ko dajale rek maa ngi jégalu ci saaga bi fen baaxul aji tey ji yow toog ci sa ci sa Dakar live bi naan waaw jàpp nañ délégué Amar de ñu ngi koy fekk ca poche dorog te xamoo yow ma mm. doo ko def parce leeru la waaye ñoom dañoo yàgg parce que xam parce que comprendre naa leen parce que journaliste yi lañ yoo xam ne dañ doon yàgg dugal audience pour am euh, rendez-vous ak PDG Doro Gueye amuñu ko moo tax buñu bu bu amee jafe-jafe ñuy profité doolu yàq leen voilà non ah loolu la rek journaliste yu bëri loolu la ñuy def mais 30 millions yi ñuy wax ak Wally Ballago Seck 30 millions 30 mm-hmm. millions bëriwul di luñ ko waxal wax nañu ne 30 millions Doro mës na yëkkati 30 millions jox ko ko Wally Wally waaw moo yëkkati 30 millions jox jox ko ci affaire bi ku ko wax ak ki ko wax waaw ki ko wax ak ki leen ko wax dañuy kàcc dañuy fen dara du ci dëgg. te lu rek xam naa li nga wax de non non non def participation jàppale ko Doro ak leen a dégg waaye li jàppaleem Doro xam nga fan lañ toll jamono ji mhm. bu ñu woon bu wa bu waa bu Doro indee 500 millions. ñu génn ko waali xam ne lii bu ko joxee am ci cent millions day dem joxe ko ñu bàyyi doola kon du affaire de jàppale ay 30 millions noonu. kon waali li tax nga bëgg ko weddi lan nga koy maa ngi fa maa ngi fa maa ngi fa. bañ ko téye garde à vue ba niñ koy defaree chaque jour suñu xëyee dañ fay nekk te waali dafay nekk. dama ni la bu ñu waxoon nii nii wa woote nii nii. Mhm. justice bu woote woon plaignant bi ànd ca. ñu ni bu ñu indee un milliard wala bu ñu indee 700 million ñu bàyyi dooru gay mu ñibbi këram. Mhm. barke leelu alxuraan waali jaral na ko tey la këram dem ci baraak bàyyi ñu bàyyi dooru mu ñibbi. aji laaj laajal ma ko waali la ci am ay période bii. mooy ma ne la bu xëyee ma nga fa. Mhm. yendu fa ba ngoon jot dem ñibbi. dama ni la bu nu bu nu waxoon ne bu ñu woote woon lii ne bu indee 700 millions léegi léegi léegi ñu bàyyi dooru dooru mu ñibbi. waale am ko ko jox sa abal 700 millions mu tay la ko këram mu dem dëkk ci baraak billaahi mu def ko ñu bàyyi dooru mu ñibbi këram léegi hmm. foofu la toll ci moom kon non yooyu ay fen la rek fu ay fois ay 30 30 millions day weccet day weccet loolu weccet la di hmm. waaye yéen nit ku ñuy toppee 200 1 milliard 200 millions hmm. ngeen naan nit indi na 30 millions 30 millions lan la ma. mais Waly mën na ko def. weesu na foofu déggoo ma ne la Waly bu ñu bu ñu bu ñu affaire bi yéen gars yi moo tax comprendre leen de. waxuma waxuma la dugal na ca dara. dama ni la buñ ñu woon nii bu ñu indee temps ñu bàyyi dooro mu ñibbi Waly jaral na ko tey la laa la wax këram dem ci ay baraag dem joxe loolu ñu bàyyi dooro loolu déggu leen wax ji. d'accord parce que xam mun ñun xamaguñu fu dossier bi toll. pour te dire ngeen tënkal leen wax déggoo ma ne la bu fekkoon ne que problème mu xaalis boobu rek la rek la ñu ne bi nañ ko indi mu kii ko kon waxatuñ ko kon dooro du fa teg du fa fanaan sëñ bi il faut ñu demee ak xel mu sell mhm. bu plaignant bi ne bu door a temps ñu ma retiré sama plainte justice tamit ànd ci parce que justice nit ki man nga amal problème at moom yoon na laa may nga fay bu plaignant bi d'accord ne bu ma joxee temps waaye yoon mën naa def liggéeyam mhm. ci kaw liggéey boobu yoon man def man na nekk mandat dépôt man na nekk relax loolu sa ci yoon la dépendre pele ñaa man ngaa bàyyi retirer sa plainte mais yoon mën na def liggéey mhm. ci kaw yoon mën na def retour de parquet mën na la may LP mën na la dóor garde euh, mandat dépôt mhm. waaye ñu ñun dañuy ñaan ci kaw loolu bu loolu amee yëpp yoon liggéey bi muy ña bi may koy ñaan mu def ko ci kawam mooy liberté. d'accord en tout cas le 3 bi ñu dëgmal. Mm-hmm. Euh, dina taxawaat ak ak janook euh, bi muy lundi bi nga xamante ni moom la ñu dëgmal ginnaaw tey dafa amaat euh, retour de parquet mais dafa am leneen loo xam ne. information parce que gis say mbokk naataango yoo xam ne ay fenkat lañ ay kàcckat lañ bind nañ ne il était déféré muy le site internet bu naan nu mu tudd Dakar Actu. parce que gis nga moo tax nit. si dañ ko bind ñoom ñoo ko bind. man mën nga modérer langage bi pourquoi nga. waaw lu ma ciy la mais kàcc la mais du dëgg nit bu bu ñu dëgg duñ ñu waxuñu dëgg. il était déféré du dëgg. mais mën na nekk mot bu ñu bu ñu utiliser. Oh, bu bu leen ko defar na yéen man nag journaliste daal day mel ne ay ah mais. nit koo xamante ne nii que dañ ne la retour de parquet.

déedéet du benn de <laughs> moo tax da ngeen jàngut journaliste yi bind loolu xamuñu li ñuy bind ndax jànguñu. dañ naan bu fekkee kun ñu war a yóbbu ca kaso bala dañ naan dóor nañ ko mandat dépôt fële ca 100 mètres wala ca Cap Manuel wala ca camp loolu mooy mandat dëppo procureur jébbal na la waa euh, pénitentiaire mais boo déggee baatub defeere mooy kuñ téye garde à vue deux jours procureur ne nañ ko indi tribunal ñu defeere la tribunal bu 9h joté midi bu midi xassé jot déferment day arrêté loolu moy déferment waye nit tribunal depuis mardi ah le mercredi ñu naan déféré nañ ko tay pour sa mhm. yi nga déferment. Mhm. pour être précis la ban jour. vendredi ah, tay la vendredi. retour de parquet am. lu dul yóbbu la prison. non non moo tax ah, xam nga waaw ah, déglu ma rek déglu ma rek waaw jox ko micro bi nee na moom nee na moom nee na ma avocat kii non non non parce que dama xam li ci yoon. waaw demal nee retour de parquet. Mhm. dèjà mënatu fi am wàll fu dul lundi. bu dul lundi mun nañ la déférer yóbbu la 100 mètres nga fanaan ba lundi ñu indiwaat la tribunal. loolu ba tey ba tey ci ci indication défèrement la toll. lañu toll ba tey. pare nga pare nga waaw non déglu waaw da ngay déglu da ngay déglu da ngay déglu. da ngay déglu waaw non non da ngay déglu da ngay déglu non non non barki sëñ Bàmba li nga wax du dëgg. billaahi li mu wax du dëgg. wal dem bu la neexee nga dem ñooñu dem te naa nga jàkkaarloo comme wax li ma wax la ñuy accepté li ñu ko wax duñ ko accepté loolu fan la am ci àdduna. man jàpp ñu ma fi. ñëwoo central fekk ma fa retour parquet jour jeudi euh, euh, retour parquet vendredi ma def fa samedi dimanche lundi di férié. loolu du retour parquet retour parquet une semaine sax am na dix jours sax am na retour parquet ci décision procureur wala juge lay jóge moo koy dési mooy koo xam ne tey jii maanaam defeere nañ la biñ la déféré tey procureur bi war a jël sa dossier jox ko benn juge de cabinet juge de cabinet bi war a jàpp wala dara war a mën a war a gutee mën a jàkkaaroot yow mu def la retour de parquet nga dem tribinal amoo goo pen. yaa ngi juum lan mooy moom mooy. nga dem central au. waaw te te ñëw tëj débat bi bàyyi ko moom waxtaan. waaw non non li mu wax nag li mu wax. da ngay laaj Mass. Euh, bu ñu yàq sa émission parce que wax dëgg yàlla loolu indiwuñu fii mais nit boo xamul yoon ñun ñi xam ne jànguñu tooguñu ban école xam nañu yoon ndax yàlla moo ci cëre dañ faa jaar. sa droit bii nag jàng baaxul de xaw ma ban prof moo la yoroon mais prof bi baaxul. comprendre non non non déglu rek euh, soo bëggee soo bëggee non non non non non waaw di déglu sa waay yéen lii di waxtaan de eh, lii di waxtaan de interview la yaakaar naa waaw déglu rek waa lii di waxtaan de non lii di waxtaan de non non ba pare après ñu waxtaan ci euh, euh, dafa am lu mu wax sànq loo xam ne dama koy teggil mu xam lan mooy àdduna ndax dese naa xam lan mooy yoon sëñ bi man dama lay wax loo xam ne dund naa ko retour de parquet la ko defee benn amagoo mandat dépôt sa pen commencé gul ndax demagoo fële di waaw xaa euh, demagoo fële nga xam ne moo di euh, kaso di 100 mètres demagoo demagoo jox guñ la daal denk guñ la waa fële euh, nuñ koy waxee président nuñ koy waxee. dénk guñ la ñooñu. heure bu ñu la dénkee ñooñu nag nga ni cëpp biir kaso sa pen commencé na te jour ba nga njëkkee dugg ca kaso ba mm. mais retour de parquet fii yaa koy am amagoo benn peine. yaa ngi ci loxoy yaa déglu rek yaa ngi ci loxoy juge wala yaa ngi ci loxoy procureur xoolal mooy jël nañ la dénkaan nañ la central central bu ñu xëyee dañ lay indiwaat tribunal mais jël nañ la yóbbu nañ la 100 boo xëyee ñëwaat 100 mètres bu ñu la fa xasee ba dugal ma wax la benn affaire boo xasee dem tribunal nga signé mandat dépôt mandat dépôt boo xasee ba signé amoo si signé mandat dépôt tey ñëw suba déedéet maximum bu fekkee ne da ngaa dem euh, franc grand délit di nga toog 3 jours doo ko ñëw ñu lay àtte bu fekkee dangaa nekk correctionnel demal xamagoo kañ lañ lay àtte mën ngaa dem un mois deux mois trois mois quatre mois cinq mois six mois juge bi wala àtte la. Mm-hmm. mën nga def fa un an mën nga def ay at yàlla nañ ci yàlla mosal juge bi wala appel la. appel mm-hmm. la loolu mooy loolu mooy correctionnel. Mm-hmm. mais ay def na ay mandat dépôt wala def na retour parquet juge bi jël da ko yóbbu euh, def na retour parquet dañ ko yóbbu tribunal bu 100 euh, mètres bu xëyee day ñëwaat. bu ñu naxante bu ñu nekk ay naafeq. demal nga laaj say avocat wala nga laaj ku la mën di doon lii ma la wax du deñ te yow li nga wax day deñ ñu avancer suñu suñu suñu débat ah. parce que tamit loolu am na loo xam ne nañ ko bàyyee ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy juge ak procureur ñu bu ko defee ñu mën ci euh, ñëwal dafa am leneen loo xam dañu ko dégg mooy euh, Wally Bal Abonnez-vous, Charles le Sénégal. Abonnez-vous, Charles le Sénégal. Abonnez-vous, ciao le Sénégal